سورة الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء kon ñaareelu tomb bi mbokk yi mooy dañoo nekk ci contexte boo xam ne tam contexte la bu doy waar mooy ku nekk xam na ni yàlla dafa wàcce benn nattu boo xam ne da ko ci àdduna bi muy natt boo xamante ni nattu bu yéeme la mooy feebar boo xam ne yàlla da ko wàcce te waxoon nañ fi suñ jotaay yeeweesu ne feebar ba la ko waral mooy bàkkaar ndax bàkkaar yu bari mooy waral épidémie kon épidémie boobu lañ ci war a gën a def mooy dem delluwaat suñu borom tuub jéggalu suñu borom dañoo war a dimbalante ndax mbokk yi yi ñu ci ay jafe-jafe jullit yi ñu ci ay jafe-jafe bëri na ñoo xam nekkuñu faqiir nekkuñu miskin waaye feebar bi def na leen faqiir def na leen miskin kon ñun il faut que ñuy dimbalante suñ bopp ñoo tax suñ borom ni yaa ayyuha alladina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waaye wafaalul xayra laallakum tuflihun nee yéen ñi gëm dee leen julli irka'u wasjudu mooy dee leen julli wa'budu rabbakum ko rak yep dugg ci natt azaka dem màkka waaye wafaalul khayra dimbalante len mbokk yi dimbalante leen day leen def aw yiw day leen defante njekk ci seen biir su ngeen ko defee day jombul di ngeen ci am benn diplôme bu ñuy wax alfalaax muy texe yàlla nañ ko yàlla defal kon yéen jullit yi nañ xam ne taxaw ci àqu jullit yi ak rafetal nooy ànd ñoom ak dugal ci ñoom mbégte maanaam loolu day yonent bi salaasam dafa nurale jullit yi ci niñ ko xamee menn yaram wenn yaram yaram tey bu fekkee ni baaraam day metti bët du nelaw nga ne ko li tax nelaw mun la sama baaraam bi day metti ba maanaam nga ne demoo école tey wala demoo liggéey nga ne sama baaraam bi day metti maanaam yow añoo nga ne sama baaraam bi day metti moonte baaraam bi rek kay metti de biir jàpp na tànk loxo jàpp bët jàpp nelawul tànk doxeetul cër yëpp bañ solidarité ci baaraam bi metti jullit noonu lañ war a mel bu benn jullit amee jafe-jafe ñëpp dañoo war a solidarité ci jullit yi parce que ñu bari ñu ngi naan nañ xaar aide état nañ xaar mi dëkk ci ab koñ te am am na feebar def na leen ay chômeur te ñu xëy di war a joxe dépense di dund di xëy di tëdd demuñu fenn ndax seen liggéey yàqu na mënuñu liggéey leneen nga gis leen te yow jàppale leen maanaam loolu jullit bi war na ko moytu bu baax a baax a baax moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne man nafasa an muminin kurba min kurabi dunia nafasa llahu anhu kurba min kurabi yawmil xiyaama képp koo xam ne dindil nga jullit njàqare ci njàqare àdduna yàlla dina dindil njàqare alaxira njàqare alaxira ba nga xamante nit ñi dañuy mel ne ñu màndi ku nekk di jayi jayi xamoo foo jëm njàqare ba ku la yàlla ku ko yàlla bëgg yàlla dindil la ko sa mbokku jullit yi nekk ci jafe-jafe ci jamono yi danga leen di dimbali da leen di jàppale mu ne tam wa man yasara ala maasarin yasara llahu alayhi fi dunia wal axira ku yombalal jullit lu ko jafe woon yàlla yombalal la say mbir àdduna yombalal la say mbir àlaxira ndekete sa mbir yi nga bëgg mu yomb sax li la yàlla dénk tey te sa mbokkum dëkkandoo amul dara jël ca nga jox ko yonent bi danoon wax naan billaahi gëmul yàlla billaahi gëmul yàlla wax ko miraaran ay yoon ñu ne ko kan mu ne ki fanaanee regg dëkkandoom fanaanee xiif mu yëg ko mën koo dimbali te dimbali ko te mbokk yi da nga gis sax ñoo xam da nga leen di dend appartement waa taal na moo daa am dara ah yaa ngi yëri ba xam taal na yow yaa ngi togg sax lu neex di yëngal muy xeeñ te yonent dafa na la boo soppee sa cin sax boo ko mënut bari lal mbir ma xéewal ga nga man cee tàng man cee jël jox sa dëkkandoo waaye yow yaa ngi yàkkamti moom bañ a togg ba nga togg lu neex yow di ko xëlantoo wala nga jox say doom furweeg lu ne nga jox leen ko ñu romb sa doom yi dëkkandoo di leen ko xëlantoo ñoom ay doom di jooy di ko demandé te mënu leen koo jox loolu ab jullit war na ko moytu su ko defee jullit dafay dimbali moroomu mu wa man satara musliman satara allahu lahu fi wal axira wallahu fi awni al abd nag maa kaana al abd fi awni axihi ku suturaal ab jullitam ñu xam ni yàlla nag mi ngi sax ci dimbali jaam bi feek jaam bi mi ngi dimbali mbokkum jullitam yonente bi salaasam teg ci benn xadis boo xam ne dafa ni man adxala ala ahli baytin min al muslimina sururan lam yarda allahu lahu thawaban duna aljanna na képp xam ne fexe nga bu dugal mbégte ci kër jullit mbégte ma nag mën naa am nga fayal leen bor wala ñoo muñ dépasse nga jox leen ko da nga gis seen ku ne la tey mu lu ñu soor wala nga gis koo xamante ni du àdduna du yàgg mukk ba mu ñëw tàllal la loxoom waaye mi ngi dund lu metti nga mën a diin jënd saakub ceeb tey bañ cee xaar état jox ko wala jënd déwlin jox ko wala suukar sumu suukare ci weeru koor nga jox ko wala depanse nga jox ko kooku nga dugal mbégte ci xolom kooku de yàlla la muy gërëm pour fayale ko rek yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee mu tàbbal àjjana loolu rek lay gërëm ci fayale ko ci jëf jooju nga def yonent bi sa sam benn saxaaba daa ñëwoon ni ko ayul amali hab ilallahi taala yan jëf moo gënal yàlla yu yonent bi man dama bëgg li gënal yàlla ma di ko def yonent bi ne ahabu naasi ilallaahi anfaahum linnaas maanaam ki gënal yàlla ci nit ñi maanaam mooy ki gën a mën a jariñ nit ñi waaye jëf ji gënal yàlla ci jëf yi mooy mbégte moo xam ne suratan tudxilu ala muslim takshifu anhu kurba aw taqdi anhu daynan jëf yi gënal yàlla mooy mbégte moo dugal ci xolu jullit moo xam da nga ko fajal maanaam njàqare wala nga fayal ko bor wala mu am problème mu dépense wala problème mu dund nga jàppale ko ca mbégte moom ngay dugal ci xolom nee na jëf jooju moo gënal suñu borom kon ndekete ki gënal yàlla ci nit ñi mooy ki gën a baax ci nit ñi ki gën jëf ji gënal yàlla mooy mbégte moo dugal ci jullit xool leen mbokk yi kon da nga gis ñoo xam ne fi mu toll nii ñi ngeen lu dul jeex tëdd ci dëkk ci ab quartier ëppale fa jafe-jafe bi am pensé woon ko fa nga dëkke tamit lu ama am solo la ñu nga dëkkal ñu gis sa alal dëkkandoog yow ci sa alal nga am sa alal te gis ne ñu ngi ci ay jafe-jafe nga topp leen ñoom ñooñu kenn bañ cee xiif kenn bañ cee rafle kër gu ne nga dugal fa lu ñu mu xii mën a loo yaakaar naa mbokk yi loolu lu ko ëpp tuyaaba ré amul te ñooñu dinañ la gën a bëgg bëggeel dina gën a dox seen diggante jàmmoo dina gën a dox seen diggante li nga am dinañ la ko gën a ndax bëri na borom alal yoo xam ne am nañuy noon fa ñu dëkk te la ko wutal mooy la ñu am dañ koo dim dañ ko bokkul na leen ko lislaam waxee ak ñeen dëkkal la ñu am dañ cee joxul àqu ña leen dëkkal su ko defee ña leen dëkkal duñu leen xool bëte bëtu cofeel duñu leen xool bëtu ñaane leen yàlla loola yokk kon li la lislaam sant ci alal ji saa boo ko defee ñu nga dëkkal ay soppe ngeen di doon ay mbokk ngeen di doon te li nga am dañuy bëgg mu yokk ndax mu yokkoo seen njariñ da cee daal di génn kon ñu xam ne mbokk yi jamono ji dimbalante lu am am solo la moo tax yonente bi ne inna lillahi xalqan xalaqahum li xawaaiji nnaas yafa yafzau ilayhim fi xawaaijihim ulaika al aminuna min azabi illahi taala mu ne yàlla am na mbindeef yoo xam ne soxlay nit ñee leen gënal seen soxlay bopp am na ñoo xam ne tey bu ñu xëyee ba bu ñu gontee ci soxla nit ñi la ñuy nekk ñooñu nag ñooñu day mel ni ñooy représentant yàlla ci kaw suuf ñooñu day ñooy ñi nga xam ñoo am sécurité ci kaw suuf ñooñu day ñooy ñi nga xam ni yàlla dana leen fay tuyaaba yu rëy rëy rëy moo tax yonent bi ni man aghaza malhufan kataba laahu lahu thalathan wa sab'ina maghfira wahidatun fiha salahu amrihi kulli wa sab'una lahu daraja yawm alqiyama mu ne képp koo xam ni xettali nga ku nekk ci jafe-jafe yàlla dina la bindal juróom ñaar fukki tuyaaba ak ñett benn ba rek lala yàlla jox ci àdduna ca la la sa mbiri àdduna yépp benn ba nee na juróom ñaar fukk ak ñaar yépp ay daraja lu mu lay yëkkati la boo léegi yomal xiyam kon mbokk yi fal na taawan ta taawanu alal birri wa taqwa wala taawanu alal ismi wal udwan mbokk yi jamono ji jamono yi dimbalante la mbokk yi nañuy dimbalante ku nekk nga tane ku nekk dëkk ci quartier bi ñi mu tane ci quartier bi na leen dimbali jàkka yi ñuy daje nañ fay dimbalante dawaa ir yi nañ fay dimbalante fan yee damaa dégg benn son bu am solo benn waay boo xam ne benn jigéen boo xam ne ab chrétien la ci réew Europe yi maanaam di yéem di yéem taalibe murit ya fa nekk daje gañu daje maanaam xooluñu sax ni chrétien la dem jël ndimbal yóbbu ko fa mu toog di ko yéem di sant di ko yéem xam ne ndekete lislaam rek kay dëgg kon moo tax ñun taalibe Serigne Touba yi dañoo war a xam ne lislaam Serigne Touba mooy lislaam kon li lislaam di digle lépp dafa war a feeñ ci ñun dafa war a feeñ suñ doxale kon daayira yi nañu jël kees yi xool ñi nga xam ne dañoo nekk ci daayira yi te nekk ay nekk ci biir daayira yi nekk ay membre ci daayira yi te seen liggéey yàqu na amuñu lu ñu leen dimbale nañ leen dimbali ñi ci tane na nangoo muñ jël kees gi dimbali ñañu tane nañ ko def ci daayira yi jàkka yi tamit la ñuy dajale ci xaalis nañ xool ñuy julli si ci jàkka yi te néew doole seen liggéey yàqu amuñu dépense ñu dimbali leen parce que nag jullit yi bu ñuy daje dimbalantee tax ah dimbalantee tax taawanu alal birri wa taqwa nañu dimbalante ci mbaax ak ragal yàlla kon dimbalante lu war a yaatu la ñu nekk ay xarit ña ca gën a néew doole na yeneen xarit yi am doole dimbali leen ñu nekk ay dëkkandoo ña ca néew doole dëkkandoo yi am doole nañ leen dimbali ña nekk ca jàkka ji ña ca néew doole ña am doole nañ leen dimbali ña nekk ca daayira yi ña ca néew doole ña am doole nañ leen dimbali mbokk yi suñ ko defee rek yàlla danañu yërëm ndax arrahimuuna yarhamuhumur rahman yàlla nee na ñi yërëme man yàlla dama leen di yërëm irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama yërëm leen ñi ci kaw suuf ñi ci asamaan yërëm leen Sëriñ Tuubaa nag daanañ wax ni seen eh, saxaaba yi tul kiraam ñooy seen i bàyyi ci diine ca jamono yonent bi nag sallallahu alayhi wasallam am na benn saxaab boo xam daa ñëwoon fekk si ko ci jataayam ni ko yonent bi awma lu ma lekk dimbali ma yonent bi yónnee këram ndax yonent bi faqir la woon bu ñu jàpp ni ku bari la la woon déedéet faqir la woon mu yónnee këram ñu wër soxna yëpp dara newu fa ci lu ñu mën a lekk ndaw li dellu siwaat mu ni nag ku mën a ganale sama gan gi benn lansaar daal di koy jël yóbbu këram ni ko maa koy ganale ba mu demee ndekete la dal yonent bi dal na ko bàyyiwu fa woon dépense ab reer dong moo fa nekk reer ba desitu añ la woon boo xam ne soxna si da ko dencoon ni bu guddee ma tàngalal ko xale ñu reer mu indi gan gi ne soxna si man indi naa gan tey dafa xiif dama bëgg ñu leel ko mu ne ko bàyyi woo mu kon de bu yeboo nga ne ko ah waaye ba tey reer bi bëriw bu ñu ko bokkee du ko jariñ dara duñ kon rombal lampe bi koo defar mu fay mu romb bi fay mu ne ah kon de xëy bool bi tiim gan gi gan gi ngi nekk ab samben bo xamni mi ngi xiif bu gisatul dara mom limi muy yàkkamte rek moy xewul mi ñu tegee bi ndeysaan ñom gan euh, ñaari wa lansar yi moy mom ak soxnam ñu tim bol bi tim ko gan gi maam di duggal seen loxo du ñu tibb dara di génne loxoy kese di sàqami seen gémmiñ di duggal di sàqami seen gémmiñ gan gi di lek di lek di lek ba suur nelaw nelaw yu neex yo xamni gëñ ñoko nelaw ba ñu eggee yonent bi dafa da reetaan ndeysaan muñ muñam gu sell gogu ne len bu yalla do yéemu ci jëf day ñu ni seen jëf ji yalla yéemu na ci kon motax mu mun wa firuna yata'ammawna ala anfusihim walaw kaana bihim xasasa ñoom dañ daan gënal seen mbokk ci seen bopp donte sax li ñu joxe maanaam soxla nañ ko gis nañ ko ci Ali ibn Abi Talib ci yat ci miskinan yatiman wa asira innama nut'imukum li wajhillah la nuridu minkum jazaan wala sukura ba mu jirim ba dimbalee prisonnier ba dimbali maanaam ka nga xam ne dafa ñàkkoon maanaam te ba mu koy def yàlla dong taxoon te ba mu koy def ndogom la jël jox leen ko ba xiif di ko bëgg a rey ba yonent bee ko mujj xettali indil ko lekk kon ñu gis ne saxaaba yi noonu lañ doon dunde Sëriñ Tuubaa nag nee na saxaaba yi ñooy seen i bàyyi ci diine moom noonu la ñu yare noonu la doon dimbe moo tax yoonu murit maanaam gën a kawe di fu mu toll parce que lu ñu am dañ koy bokk kon loolu ñun taalibe yi nañ ko delloosi bu baax a baax ci biir daayira yi ci biir mbooloo yi ci biir jàkka yi dimbalante jàppalante ñu néew doole jàppale ñu am doole ñu am doole jàppale ñu néew doole suñ ko defee jafe-jafe bi kenn du ko yëg yàlla nañu yàlla jàppale yàlla nañu yàlla dimbali fitna bii ñu nekk yàlla nañ ci yàlla génne ci barke ramadanul mubarak ci barke Sëriñ Tuubaa radiyallahu taala anhu yàlla indi ñooy xéewal yàlla soppil ñu wéré di gi wér te soppi ñu jafe-jafe yi ay xéewal inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra yàlla na jafe-jafe bi ak yombal tegu ci yàlla mën na ko yalla na ko yàlla def kon ñi ngi sant ñëpp den gërëm suñu jotaay bi nag ñi ngi ko defe woon ñi ngi ko defe woon ak Kennel gi TV maanaam ànde kook Serigne Soare ñi ngi koy ziar bu baax di ko gërëm di ko ñaanal ci koor gi yàlla na ko yàlla yokk ndax mu ngi liggéeyal diine mi ngi tasaaral diine yàlla na ko yàlla dooleel dooleel leen ba ñu am ab boo xam ñoo koy moomal seen bopp yàlla mën na ko boo xam day bi yëpp yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla defal ci bu barkeel wi waa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin ki nekkoon ak yéen ci jataay bi mooy oustaz Moussa Wade nekk al di nuyu bu baax fadilatul mudir mi nga xam ne mooy suñu kilifa di nuyu waa azhar yëpp oustaz Moustapha Kane ngi fi oustaz Jibi Mbaye ngi fi oustaz Salif Faye ngi fi ñu ngi leen di ñëpp wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil